Euh, les travaux spécifiquement Saint-Louis que nous venons euh, de, donner aujourd'hui, Saint-Louis sera entièrement reconstruit. Entièrement reconstruit. Euh, comme vous, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, l'aérogare, la tour de contrôle seront détruits et entièrement reconstruits par la société tchèque euh, euh, en plus des bâtiments aérogares et tours de contrôle, euh, tous les autres bâtiments, les bâtiments de sécurité incendie également sera reconstruit. La piste principale sera allongée et élargie, passant de 1900 mètres à 2500 mètres. les voies de circulation que vous avez vu également seront, seront élargies. donc des gros porteurs pourront arriver à Saint-Louis. Les gens n'auront plus besoin d'aller jusqu'à Dakar pour euh, transférer le fret aérien euh, vers les, destinations européennes ou, américaines. Donc euh, vraiment c'est extrêmement important pour l'économie de la région. Le développement de l'aéroport est, vraiment le premier pas parce que les pétroliers vont devoir utiliser la plateforme de Saint-Louis pour pouvoir se rendre sur les plateformes pétrolières. Et, vraiment c'est important pour nous que Saint-Louis devienne un, hub aérien vous avez entendu leur discours également. Il n'y a pas d'inquiétude. Hein. vraiment, à chaque projet, de toute façon, vous avez toujours euh, certaines inquiétudes qu'il faut lever. Hein. nous avons passé énormément de temps à transférer des sépultures. Vous saviez qu'il y avait un, cimetière juste à côté, juste à l'intérieur, en bout de piste. Monsieur le Président de la République a été vraiment génial pour Saint-Louis et aujourd'hui, euh, Dieu merci, nous venons donc de, livrer le site. Les travaux vont démarrer. Euh, dans 18 mois, vous verrez vraiment une autre, un autre visage de Saint-Louis. De Mognot, pour... Euh, signé li ñuy wax procès verbal bi nga xamné moy joxé joxe aéroport bi société bi nga xamné moko wara a tabax aéroport bi nak euh, tabaxam dafa nek ci programme bu son excellence monsieur Macky Sall président de la république du Sénégal euh, programme de reconstruction des aéroports du Sénégal mu tan ci cinq YO xamné dañ ko dénk chèques yi mu tànnaat ci 8 yo xamné ak ay bailleurs de fonds yi nga xamné ñom lañuy Euh, autour du du pays yoo xam ne tamit dañ ko war a euh, réhabiliter. comme signé nañ tey euh, procès verbal bi joxe site bi société bi nga xam ne day commencé fii ak 18 doote leen xamee ci saint donc bâtiment yi muy bâtiment bi ñu wax aérogare bi ngeen di gis nii sama kanam bâtiment tour de contrôle bi ngi nekk sama ginnaaw bi nga xam ne tamit fa la contrôle di nekk di di contrôler avion yi fii ñëw bi nga xam ne carburant bi fa lañ koy fa lañ koy denc piste bi ngeen gis nii tamit dinañ ko yokk dinañ ko yaatal Euh, voie de circulation yi tamit yéen gis dinañ ko yokk tamit dinañ ko yaatal euh, parking bi tamit dinañ ko gën a dëgëral. Euh, bu paré dinañ mëna accueillir avion yu gën a mag avion yu gën a mag avion yi nga xam ne su jëlee exemple fret bi par exemple yi nga xam ne ñu ngi koy béyee wala di ko di ko di ko amee ci Louga wala région yi nekk juste à côté fii yëpp mën nañ ko ñëw mën nañ déparé à partir de Saint-Louis soxlatul ñu dem ba Dakar pour mën a yóbbu fret aérien di ñaan tamit population yi ak travailleurs yi ñëpp.

donc lolu mom dafa bok sax ci rapport euh, environnement bi euh, rapport bi nga xamné tamit bobu euh, ministre de l'environnement joxe na certificat de conformité manam lepp luy ci mbiru environnement euh, liñu bëgg def fi and nak lolu voilà donc lolu mom la ci la ci amul luma ci wax euh, di rafetlu lolu di ñaan tamit population bi ak euh, personnel bi nekk fii ñu jappalé tamit liggéey bi ñëpp and ci dal ba nga xamné ne dinañ dinañ ci paré paré tamit Saint-Louis ak Matam dem ci Ziguinchor dem ci Kédougou ak dem ci Tambacounda tamit euh, yooyu mooy cinq aéroports yi nga xam ne confie nañ ko euh, Transcon euh, bi jógee ci République tchèque